jërë ngeen jëf suñu mbokk internautes yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci bawal info point net yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci page Facebook bi wala yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci chaîne YouTube bi kii ngeen di gis nii nag ci photo bi mooy Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma nekk sëtu Serigne Touba Khadim Rasoul ñëpp xam ko fii ci Touba ba pare tamit mu nekk ministre conseiller tey daal nañuy séq waxtaan yëkkati na ay kàddu ci euh, titre bii ngeen di gis nii titre bii nag euh, benn journal la bu tudd Le Quotidien euh, Le Quotidien bii nag journal la boo xam xamante euh, xam nañ ko euh, ki nga xamante ni moo ko moom di kii ngeen di gis ci photo bi di ma Madiambal Diagne fan yi ñu génn euh, journal la Le Quotidien dafa def benn titre boo xamante ni murid yu baree baree bari mbir mi naqari na leen journal bi li mu titré woon man ngeen koo liir ni mooy Touba Mbacké l'axe du mal si waxtaan wi nga xamante ni Cheikh naa ko ak Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaynde ma wax na ci lu jëm ci titre yi nga xamante ni yenn ci ay taskatu xabaar dañ koy titré bu ci mel ni l'axe mal moom mu jàppee que ne loolu mbirum provocation la daat nay wax tamit moom Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ci waxtaan wi que ne l'axe du mal terme la boo xamante ni George Bush sax daana ko utiliser bu doon attaqué ñi nga xam ne ñooy waa Iran danañ ci ànd ak moom ci waxtaan wi leneen loo xamante ni tamit waxtaane nañ ko mooy marché Ocass bii nga xamante ni tey tëj nañ ko jamono ji mu nekk marché bi gën a rëy mën nañ ko wax sax ci région de Diourbel te ñu bëree bëree bëri euh, di liggéey si marché bi euh, jafe-jafe yi nga xamante ni ñi fi doon liggéey danañu ko dund daan ci yëkkati kàddu jàpp ne tëj marché bi mbir la moo xamante ni mu mënul ñàkk la si jamono ji daan nay wax tamit lu soxal wàllum transport bi dem bi ak dikk bi diggante Touba ak Mbacké mu jàpp ne war nañ see jël ay matukaay ndax transport bokk na ci li gën a mën a yokk wàllante bi ci jàngoro ji. Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Serigne Djili di nuyu mboolem ñi nga nekkal te mboolem mbokk yi ñu déglu yëpp di leen masaw di leen jaajëfal. Cheikh Abdoul Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil sëriñ bi Touba euh, cas communautaire yi bëri na ñu bëri amee fi euh, jàngoro ji euh, marché bi nga xamante ni tey moo ëpp Touba di marché Ocass ak yeneen marché ñu tëj ko loolu yow lan moo ci sa xalaat ndax du indi gàllankoor si ñu bëree bëri ci nit ñi fa doon xëy. non farata la dafay farata. parce que xam nga marché boo seetloo ca gannaaw war na mat un mois le vingt six bële passé eh, demoon nañ fa euh, bale ko boobu man boobu man la woon maa fa demoon maire Touba àndoon na ci UCG àndoon na ci ak euh, ak euh, ak Touba ci kanam àndoon na ci ak les délégués de quartier ak l'association des commerçants industriels du Sénégal assise donc ñu ñu ñun ñi ñoo ñoo booloo suñu doole dem raxas marché bi ba mu set bale ko ba mu set tubaa ci kanam également jënd produit jox ko service d'hygiène service d'hygiène euh, pompé ko loolu un mois bañ def itam commerçant yi vraiment àndoon nañ ci parce boo xam ne woon seen place aussi ñoom ñoo ko baleelu seen bopp loolu defoon ci aju bu dem def opération aju euh, guddi aju ba jàpp samedi ñu mais buñ bu tey ji ci seize cas communautaires yi nga moo fi feeñ ci ci fan yi lu ci ëpp foofu te marché ba la jógee directement wala mu ndax ay nit ñoo ay dañu doon ay nit ñoo xam dañuy jëflante ak waa marché ba yor ay place feneen donc ñoo lay dal kon nag responsabilité également autorité sanitaire yi moo nekkoon ñu wax kilifa yi ne leen marché bi nañu ko tëj pomp ko defar ko soo ko tijjiwaat maanaam jël décision tëj marché bi carrément ñetti fan yoo xam ne ñoo ko ñoo ko ci pomp ko pompee ba ñetti fan yi jàll ñu bàyyi ñi nga xam ne dañuy jaay ay lekk ak yu mënta ñàkk ñu tijji commencé waat seen liggéey ñi ki des ñëwaat une semaine après donc loolu mooy te métti na mais nag beneen décision jàpp naa ne mënutoon a gën bii décision parce que c'est une question de responsabilité parce que bu ñu demee ba ay ba ba ay bakkan nekk en jeu bu ñu demee ba ay nit di tawat bu ñu demee aussi ba ba ba comme neex ko ne nga ne ñeme naa waaye yow boo ñemee aussi mën ngaa wàll keneen ko xam ne moom ñemewul te kooku sëñ na ar boppam su boobaa nag duñu seet loo xamante ne bii dañ naan kat lii métti na wala méttiwul mais dañuy def li nga xamante ne bii mooy li mooy li ñu war def mooy li te marché bi kenn du fi def dara comme ci dëkk bi yëpp te dama bëgg sëriñ bi ndax dëkk bi daa am lépp lépp lépp lañ njëkk bi wax ko ko bi jox am dafa am yërmande eh, ci nit ñi sax daal ne ko nañ bàyyi ñee jaay lekk wala da nga jaay te heure nga xam ne yoo xam nga xam ne même yow boo tijjee ba jënd bi sax doo donc kooku vraiment mën ngaa nga xam ne jaay ñee jaay ne du fa jaay parce que lekk aussi mënut a ba tey ci waxtaan wi ki nga xamante ni moom mooy euh, médecin chef euh, bu région bu Diourbel di euh, docteur Mamadou Dieng fan yi ñu génn dama ko liir ci benn entretien mu daal di wax ne lu jëm ci wàllum transport bi diggante mbakke ak Touba dañu ko war a tëj yow ndax yéen ñaar bokk ngeen gisin. dafa war a dakk dafa war a dakk dafa xam ne les autorités de Mbacké ñoom ñoo ko war a def ñoom ñoo ko war a def parce que Mbacké amutoon cas tey ji am na cas ñoom ñoo a def parce que transport vecteur de transmission la buñ ko waxee moom la buñ ko waxul moom la c'est ça la vérité donc képp koo xam ne doxoo lenn lenn loo xam ne du farata da ngaa war a maanaam da loolu da nga war a bàyyi waaye dugg fi oto rek ne maa ngi dem mbàkk yi ñëwaat fekk la nga fay dox mën naa xaar te diggante bi mën nga fee loru mën nga fee lore loolu vraiment mën naa ñàkk loolu mën naa ñàkk donc dafa am loo xam aussi faw faw ñu tenir un langage de vérité parce que dañu nekk dans des moments critiques de vie ou de mort xam nga donc il faut il faut ñu waxante dëgg waruñoo neexal nit ñi wala ñu topp lañ li nga xam ne moom ñu bëgg il faut ñu wax leen dëgg bu ñu ko deful bu ñu ko deful mais écoutez ñun fii ñu toog nii mais merci ñu toog fii c'est ça la vérité foofu foofu la situation bi toll. waaw mais mais sëñ bi leen leeral. Ah, ah, mais bu ñu leen leeralee. waaw bu ñu leen leeralee bu ñu leen leeralee ba noppi jël décision yi nga xam ne mooy décision yi nga xam ne moom la ñu war a jël maintenant lépp ci yërmande nag. ñu teftal ko ca. gis nañ fan yi ñu génn benn journal bu tudd Le Quotidien bind euh, Touba Mbacké l'axe du mal yow loolu euh, lan moo ci sa xalaat. dañu toll dans des de grande émotion. tey jii tey jii mën naa la wax de buñ wax en langage du son dañuy wax euh, a jóg foofu la ñu fi toll comprendre li ma la wax. Mhm. te y a des titres provocateurs c'est la vérité quand tu écris Touba Mbacké l'axe du mal mais c'est quoi ça la provocation c'est ça la vérité donc loolu loolu loolu loolu loolu mooy dëggoo boo bindee Touba Mbacké l'action du mal su ko defee nga nga nga xam lool la nga xamante ne bii moom la moom la moom par la par la passé ak ñi nga xam ne ñoo euh, ñoom la ko George Bush daan euh, daan euh, daan woye wala wala wala même lors des croisades dans dans dans l'histoire mais loolu quand même nekkul ci xol. Ah, nekkul kon expression bu yàgg la. mais oui bu yàgg la George Bush George Bush bi attaqué ay ay ay Iran yooyu noonu la ñu tuddewoon. action du mal ah ñu attaqué ay Irak yu mel noonu. yooyu la woon naan l'histoire aussi donc loo loo découragé là on parle de d'action du monde donc uh-huh. c'est une expression historique donc extrêmement chargée donc loolu baat baat boo gis nga xam nga yooyu dafa am lu fi tàmbali bi ñu fi tàmbali et puis boo xoolee toujours dafay dafay euh, maanaam waxtu yu ñu wax yu mel noonu ak heure bi kaay di bari a Touba dafay dend gis nga bi ñu commencé dafa tàmbali ñu stigmatiser disons Touba bi stigmatisé waa Touba daal di bifu parce que nit ki boo ko boo ko stigmatisé disons tu perds son soutien doo ko mën a ci dara day bàyyee ko est que xam nga donc loolu moo amoon au début am na ay fi am na wax yu ay wax yu amoon bëgguma ko décevoir parce que parce que jàpp naa ne weesu gis nga temps ñu aussi nit ñi daal di rebelle à chaque fois bu nit rek kaay yi yokk parce que nit ñi il cesse de collaborer. kon yow euh, titre boobu noonu euh, bi nga ko liiree naqari woon na non man am naa niveau de compréhension boo xam ne permettre na ma ba li nga xam ne moom may naqari bariwul parce que sama passe-passe kenn munu koo laal parce que loo mën a wax ci wax ci kanam loo mën a wax ci loo loo loo mën a wax ci Touba ak feneen itam xam nga man loolu du wàññi dara dara dara ci sama passe-passe mais mais mais mais kooku niveau de compréhension la mais am na ñoo xam ne loolu ñu mënuñu mënuñu koo muñ mënuñu koo muñ boo ko waxee tu les perds tout de suite et que immédiatement également dañuy jël seen xalima commencé la tontu. commencé laa commencé jëflante ak yow personnellement man li sama position moo di ne benn organe de presse wala benn journaliste mérité wut yoonu mu jóg di ko di ko di ko di ko tontu man loolu mooy sama position personnelle am na ñoo ma bëgg dem xam ma ne ma ne hey man jàpp naa ne benn journaliste mérité wut ñun ñu dajaloo def réunion di wax ci moom. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu moo nekkoon waxtaan wi nga xamante ni euh, jukkil nañ leen ko ci waxtaan wu yaatoo yaatu woo xamante ni euh, seqoon nañ ko ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma waxtaan woowu intégralité bi dangeen ko mën a suivre ci seen site internet bi di 3w point bawal info net jërë jëf jàmm ak